salaam wa rahmatulah. Fallou Faye. Fallou Faye ñu ngi lay gis boobu ba tey yaa ngi jaabante di ñëw di ñëw ñu bëgg a xam Fallou Faye lan nga géré fii. waaw lii de moom mooy euh, magasin bi nga xam ne mooy dépôt bi ci Kër Sëñ Fallou. waaw géré. ñu bëgg xam gestion bi naka la demee mbaa sonn leen torop ak lan ngay gérer exactement. waaw macha allah ñu ngi sant bu baax a baax baax parce que màggal moom lu ci def rek. moom sa njëriñ la waaw sa njëriñ la kon. ñu ngi gis ñi ngi génne ceeb yi di yóbbu est-ce que mën nañ xam fan la jëm. waaw lii mu ngi jëm ci waañ wi waaw si waañ fu ñu toog. est-ce que da ngeen a commencé bernde yi puisque màggal gis na ñaari fan a ci des wala léegi ngeen di commencé. waaw commencé nañ ko démb. démb depuis ajuma ba léegi. donc mën nañ ànd ak ñoom dem xooli waañ ba. si si si mën naa nekk. wu yow yaay lan nga fi. asbillahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim bokki jullit yi bokki taalibe yéen waa ko Serigne Touba maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen jéggalu di leen jéggal di leen siyaare bu baax di màggal nag seen teewaay ci biir waañ wi ngeen neex ma fi lool nag man soxna di ba jëwriñu waañ wi Baye Fallou maam Cheikh bëgg Fallou. mën nañ xam depuis kañ yéen a ngi fi. xam naa démb ba léegi daal ñu ngi fi bu ñu toggee añ togg reer tey ñu togg añ togg reer léegi bu subaa nag ñu bàyyeeg waa daayira bi nga xam ne ñoo fiy fare ba togg fi altine ba talaata la ñuy war a dellu si waat ñun incha allah waaw. Euh, naka ngeen gisee waañ bi est-ce que mën nañ xam ñaata ngeen dépensé pour togg yi yëpp ak ñaata mbana ngeen teg. mbana yi moom tey moom bi ñuy njëkkoon tàmbali ay juróom-ñetti mbana la ñuy teg wala lu toll ci ay fukki mbana su ngoonee danañ ko tegaat reer waaye bu ñu xëyee suba bu ñu nee suba la màggal dañuy tàll toll ci ay ñaar fukki mbana ak juróom añ waaw loolu ñu ñuy def. pour ñaata euh, benn plat la ceeb par exemple ngeen di togg walla la. togg ceeb bu ñu ngoonee dañuy togg tufe danañ togg piti pois euh, dañ togg it warmasel ay ay xéewali xéewal daal la togg. léegi gis nañ la ngay nokkas est-ce que mën nañ xam composition nokkas bi nokkas yi lan ngeen ci def. nokkas yi moom dañ ci def moom dañuy njëkk a defar soble daal di tibb kaani xeeñ tibb kaani gu sew jël poobar dañuy jël affaire yi yi nga xam ne moom laa ko war a orné it waaw li orne bi yëpp mi ngi fi ndax fi moom daanaka kër sëñ def ngeen si xorom ak lan du koy safal yu koy safal danañ def ay jimbo oroma si def ay sosa def yu koy safal daal wax dëgg yàlla ñett yooyu yëpp ñett yooyu rek ngeen si def ñett yooyu moom mën nañ ci def danañ def laaj def kaani xeeñ def kaani salaat daal daal lañ ciy def loolu ngeen si def ah lu lu ci nekk lu tollook ñaata comme li ngay wax aromas yi magie lu tolloog ñaata moom aromasique benn maanaam bu ne benn cin rek laa koy laa koy compter waaw benn cin bu ne ma def ci benn butéel aromasique waaw benn butéel waaw. masi itam dama koy def benn kilo bu ne benn doom laa koy calculer ndax pour bañ mu ëpp ak yooyu. ñu ngi lay